salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun fii ci Touba Argentine TV euh, télé bi safoo saa su nekk di leen joxe lépp li ngeen xam ne moom ngeen soxla ci information rawatina fii ci Touba di dëkk bu sell bii nii. tey nag dañ leen ñu indiloon benn reportage bu am solo boo xam ne ni dañ ko defoon fii ci benn projet boo xam ne nii ay murid ñoo ko yëkkati. projet bi nag euh, ñu ngi ko gën a xam Touba kanam muy projet bu soxal waa Touba projet bu rëy ci ñun muur yëpp ñu ànd ci kontaan te ci bu baax a baax a baax tey nag dañ cee ñëwoon defal leen ci benn entretien ak euh, Serigne Fallou Ndiaye Serigne Fallou ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. maa ngi lay fay nuyo bu baax euh, di leen jaajëfal bu baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a koy liggéeyal Serigne Touba à travers ci seen site web bi di rafetlu bu baax euh, jéego yi ngeen dox baax fi ngir ñu seq waxtaan. ak euh, ni nga ko wax a ci tàmbali muy projet bu mag boo xam ne projet yoonu murid la muy 2 millions de murid murid bu nekk 1000 francs projet bi nag di projet Touba ca kanam waaye suñu Fallou euh, ñu gis ne projet 2 euh, millions de murid muy Touba ca kanam mi ngi doon projet bu mag fi ci Touba te ñëpp jot nañ ci daanaka ñëpp ñu ngi ci bay seen waar bu baax a baax a baax ndax Euh, affaire yaatu na ci dëkk bi léegi ñuy laaj ba xam projet 2 millions de Mourides wala Touba ca kanam euh, da nga ci indil ay leeral bu baax a baax a baax ñoo xam fu mu jóge ak euh, projet bi nu muy nu muy nu doxee. Eh, loolu moom dinañ ci am mbégte bu baax ci leeral ko ba mu leer nañ ndax liggéey bi liggéey Touba ca kanam la Touba ca kanam la bu ñu ko waxee moom daanaka firi na boppam mooy lépp loo xam ne luy jëmale Touba ca kanam la. Eh, yëf yi nag eh, mu ngi déparé eh, ci sit boo xam ne ñun ñoo ko yoroon di ci liggéeyal Sëñ am muy Touba Info biñ ko démarré nag ñu amoon ci benn émission comme émission bi mel ni rek émission boobu lañ tuddee woon Touba ca kanam émission bi nag concept bi bokkoon na ci lépp loo xam ne gis nañ ne mu ngi Touba te jaaduwut ñu ñu reeteet ko lépp loo xam ne gis nañ ne Touba war na ko am te amu ko tamit ñu ñu jeebaanu ko. ba kilifa yëg ko ndax boobu dañ doon dox bu ñu dox di seetlu di gis loo xam ne gis nañ ne jaaduwut ci dëkk bi mu mel ni xëy na kilifa yi dañ koo seetluwut wala askan wi dañoo jàpp ne lii seen yoon nekku ci loolu nag biñ ko dee gis ñu ne pourquoi pas lii ñu ñu ñu yee ci nit ñi xamale na lii waruñu cee xaar kenn euh, ci lañ tàmbalee doon def reportage boobu ànd kook suñu Cheikh Amar euh, loolu lañ tuddee woon Touba kanam heure bu ñu xëyee. ñuy xool loo xam ne jaarul ci dëkk bi ñu dénoncé ko comme mbalit yi nga xam ne dañ koy daan fekk ñu koy tuur ci mbedd yi dem dañ koy filmer wan nit ñi ne leen ndax lii eh, nit ñi dañ ko yëgut wala dañoo jàpp ne ñoom amuñ ci genn warteef eh, yàlla dogal bi ñu ko def nag émission bi eh, biñ ci defee benn émission ñaar ñett ñu gis ne émission bi intéressé ne murid yëpp ndax képp ku ko seetaan rek dañuy commencé di woote naan kon Touba nekk am na lii lii jaaduwut lii nangam Euh, ci biir loolu nag euh, ñu am sunu benn xarit buñ ci doon waxtaanal euh, mu ñëwoon sama bureau ñu ciy waxtaan ñuy waxtaan ba yàgg mu ne dafa am benn takk gu mu dafa am benn xaritam boo xam ne dafa am ku mu xamante loon ci benn groupe whatsapp ba ñuy takkante ci laa ko laaj lañ mooy whatsapp boobu xamoo ko ma woon mu expliqué na ma mm, benn wax nañ koy créé ñu bari dajaloo di waxtaan. ma ne ko kon loolu war naa cee mën a créer benn groupe boo xam ne dama ko tuddee Touba ca kanam pour vidéo yi ma def ma ko dugal ci biir nit ñi di ci jox seen xalaat parce que boobu euh, vidéo bu ñu ko defee ci YouTube ñun cible bi ñu soxla woon mooy ñi dëkk Touba mais la plupart diaspora bi ak waa Dakar ñoo ci commentaire ci internet bi mais bu ñu soñoon waa Touba ñoo ko gis ndax ñoom ñoo ko war a njëkk a yëg saafaraal ko seen bopp ci loolu nag moom mën nañuy créer groupe ma créer groupe WhatsApp bi tuddee ko Touba ci kanam xool sama répertoire kilifa yi ma ci am yëpp ak ku ma amoon rek ma ajouté la ci biir groupe bi tuddee ko Touba ci kanam daal di jël vidéo yi dugal ko ci biir bi ko dugalee ñi ma dugal commencé seetaan di ci commentaire ma gis débat mu commencé am solo lool yàlla def ku ñuy wax sëñ Cheikh Abdou Bali mu sëñ Cheikh Gaynde Fatma moom ajouté woon naa ko ci groupe bi moom mu yëkkati ci ay kàddoom comme kilifa la lool nag dafa valoriser euh, whatsapp bi ñu bari naan am na benn groupe bu bees bu tudd Touba ca kanam ay bàkke bàkke yu loolu nag ñu bari di ma woo na ma dugal ma ci Touba ca kanam dugal ma ci Touba ca kanam nit ñi commencé ci dugg ñu ko ne def reportage di ko dugal comme ay murid moom fu ñu toog di waxtaan rek bu yàggee njariñ mën na saa juddoo biñ ciy waxtaan nag ñu ne nag lii nag waruñ cee xaar kenn nañ leen koy defaral suñu bopp yàlla dogal ci at moom nag ci la mbënn mi am Touba Ndaamaatu eh, ñu ne mbënn mi nañ leen dem ñu ñu ñu jàppale ci suñu mbokk yam dañoo ne ci mbënn mi dajale dajale suñu alal dem yow fa defar bañ cee xaar kenn ñu def benn ket ci groupe WhatsApp bi biñ ko defee amoon un million et quelque jënd ci ay dund ak ay moustiquaires yëpp dem foofu eh, fekk bi ñu defee reportage eh, waa Kër Sëñ Modou gis nañ gis nañ reportage ñu Touba meloon Euh, sëñ Modou Kara boole ñoog taam woo ñu ne moom dafa gis vidéo bi te Touba warta mel nii sax bañ koy wanee ci internet kon nag lii dañ ko war a saafara daa daal léegi nag taawam bi ñëw fi bi ñëwee ñu ànd ak ñoom ñu dem ndaamaatu yàlla def ñu jëlee fa ndox mi ba mu set biñ ko fa jëlee nag ci loolu nag ñu ne lii nag lu baax na lañ ko war a jëmmal léegi nag waratu ñoo am ci groupe WhatsApp nañ leen daje ñu toog ñu waxtaan xool lii nan lañ ko jëmmal ndax lii baax na ci loolu nag ci lañ dajaloo biñ dajaloo ci lañ ñu bari sax ci la ñu doog gisante ñu bari dañ ma daan woo rek dugal ma ñii gis ko ci Facebook envoyé ah, seet ni moom dugal bi ñu gisantee nag ñoo lii nañ ko jëmmal euh, mu doon loo xam ne day Touba da koy moom ñu ñuy defar dëkk bi duñ ci xaar kenn loolu nag ci la démarré ñu ne kon dañ ko def daayira wala ONG wala association ñoo ne nañ ko def association comme dañoo nekk ci dëkk boo xam ne dëkk droit la lépp looy def da nga ko wutal ay kayit ngir bu ëllëgee kenn du la mën a jëm ci lañ ko def euh, association ci boobu nag ñu def ma président bi comme idée bi ci man la jóge woon ñu def ma président bi toftaloon ci ku ñu wax sëñ Abdou Fatah Gueye actuellement nii may wax ak yéen sax sëñ Abdou Fatah Gueye moom mooy président Touba Ca Kanam man maay vice président man maa topp ci moom man ci cër bi moo cër actuellement man maa jiite lu jëm ci communication Touba ci Kanam nekk tamit président d'honneur bu bu Touba Ca Kanam euh, loolu nag euh, biñ tàmbalee loolu nag ci la ñu wër nag di ko yëgal kilifa yi ndax xam nga Touba moom lépp loo fiy defit euh, faw nga am ci accordu kilifa yi muy ndigal ci la ñuy wër kilifa guñ dem nag di ko leeral liggéey Touba ci kanam yàlla def ba am sunu mbokk taalibe ku ñuy wax Moustapha Dieng dem sëñ Abibou mu sëñ Fallou leeral ko liggéey bi ne ko gis naa fi mbooloo moo xam ne daal dañuy liggéeyal sëñ eh, dañuy liggéeyal sëñ Touba ci dëkk te yow moom lépp lu ñu jëfal sëñ Touba kenn war la caa sëñ Abibou ne ko bokk naa ci nu ciy bokkee mu ne ko carte de membre 5000 la weeru jot 1000 francs sëñ Abibou daggul carte Moustapha Dieng su moo ko dagal carte eh, bu mu ko dagalee carte nag ku ñuy wax ab laat loo ak ku ñuy wax bëgg fàllu moom moom mu ngi Espagne ñoom ñu demoon sëñ Abibu ne di waxtaan ak moom Touba ca kanam ci la leen sëñ Abibu wax na ne man dama amoon benn xalaat bu yàgg boo xam ne eh, yàgg naa ko am muy bu ñu mënoon fexe ba am ñaari million murid ku ne di joxe ñaar téeméer weer wi 2 milliards la at mi 24 milliards kon su boobaa reportage yi ngeen def di jàmbat su boobaa sax dootu ko jar dañuy saafaraal suñu bopp bi mu ko waxee ñoom ñu ñëw wax ma ko may leen loolu moom su fekkente ne bii dem nañ mu nangu koo wax ma filmer ko bu ko fee ñëw ko ci groupe whatsapp bi bu nit ñi ne waaw rek ñu mën ko ñu porter ko yàlla dogal ñu dem fa bi ñu fa demee waxtaan ak ñoom mu wax xalaat bi mu doon xalaat ba mu solo mais boobu nangutoon ku ko filmer dana daal moom da koy wax nii ñun ñu dem ñu waxtaan ci ma ne ko kon da nga koy def son comme groupe whatsapp la boo ko defee son bu ñu nee du ci groupe bi mu ne baax na ñu jël sama téléphone ñu enregistré son bi bi mu defee son bi nag bi mu ñëwee bi ma koy monte nag man maa jël son bi teg ci photoom pour ñu xam sëñ Abibu euh, doomi Sëñ Fall bi ma indee monté ko noonu nag jël waxam bi dugal ko ci groupe whatsapp bi bi mu ko waxee ci saasi ñu ne ci group bi commencé di cotiser seen 12000 comme weer wu jël 1000 francs la wax at mi 12000 nit ñi bi ñu ko déggee rek commencé joxe 12000 nga xam ne moom wax ji nit ñi ko dégg mu mel ni loolu la ñëpp doon xaar léegi nag ci loolu nag ci lañ delluwaat ci moom na ko wax ji dara bi ñu ko dugalee sëñ bi nit ñaa ngi commencé joxe te lu mel ni ñun mën ñu koo porter ci dëkk bi ndax dëkk bi dëkk la kon nag bu ñu soñoon yow nga doon ñëw euh, doon jëwriñu liggéey bi su ko defee euh, xëy na kon liñ bëgg dina mën a nekk ndax euh, liñ naan background moom fii faw nga am foo xam ne fi ngay wéeru te wéeri ku mel ni ci sëñ Abibu nga xam ne kenn ku ci nekk xam nañ ak dëggoom ak pësseefam ak muriteem rawatina muy doomi sëñ Fall lu day am solo ci liggéey moom it mu daal ne kon dañuy ànd ci kilifaam muy sëñ aboo mu leeral ko ko bu ko joxee ndigal nag su boobaa moom dana dana ko nangu waaye gàntaloon na sax moom ne moom affaire mbooloo daal kiiwu ci moom daal xaatam la joxe rek ñu ànd dem sëñ Abo bi ko ko leeralee sëñ Abo moom daa daal di dagg carte de membre 5000 joxe 12000 daal na ko ànd naa ci te su ma ci àndee sëñ Fallou ànd na ci ci loolu nag ci la ci sëñ bi engagé woo ñu ne ko nañ dem sëñ Sidi Maxtaar jamono yooyu moo fi nekk sëñ Touba euh, gaaral ko liggéey bi keroog bi ñu dem ñu ngi ànd ak euh, sëñ Tàkko ak sëñ Blaat moom sëñ Abibu ak euh, sëñ Mor Aysa moom sëñ Sidi Maxtaar bi ñu fa demee ñu waxtaan ceeg sëñ Sidi Maxtaar leeral ko ko bi ñu ko ko leeralee moom ci mbégte lool daal na mën ngeen ko wéyal am ngeen ci ndigal ci loolu nag ci lañ def lancement bi le 2 janvier 2017 euh, euh, ndax Touba ci kanam bi euh, WhatsApp bi man maa ngi ko créé woon le 9 juillet 2016 waaw 9 juillet 2016 ci lañ ko créé woon ba janvier nag ñu lancé projet 2 millions murid bi nga xam ne sëñ Abib andi nga xam ne dafa mel ni ñun dañoo indi loo xam ne mooy laytaay gi rek waaye li koy doxal moteur bi dëgg-dëgg mooy projet bi sëñ Abib andi bi mu ñëwee nag ci lañ ànd liggéey bi ba yëf yi agsi fi euh, sëñ bi ñu gis ne projet 2 millions de mourides bi euh, commencé na ci Touba nit ñi ñëpp jot nañ ci te ñu ngi ciy participer bu baax a baax. léegi yéen début bi nu mu demee woon nan ndax difficile woon na pour ñëpp jot ci ak euh, affaire yi au début nan ngeen doon def ba mu dugg ci xelu nit ñi ba nit ñi mën cee participer parce que yombul c'est pas facile. parce que nit ñi lu dëkk nekk ci seen bopp déjà da nga leen wax dara mais loo wax rek am nañ benn affaire boo xam moom la ñuy teg ci wet gi pour pour détruire loolu. léegi ñuy bëgg a xam début bi nan la demee ba mën a dugg ci xolu murid yi. Eh, début bi xam nga tubaat Ca Kanam yàlla da cee def tawféex te day mbirum Sëñ Touba yàlla dafa def comme ni ma waxee ni mu démarré dafa démarré ci communication ci image xam nga image moom du lu ñu werante lu ñuy teg bët la eh, li ñu doon wane eh, ku ko gis da ngay xam ne lii céréale dëgg la loolu bokk na ci li nga xam ne moo ko teel a boosté mu agsi fii ndax boobu xëy na bu njëkk. am na xeet yu mel ne ni fi amoon mais boobu dañ koy dégg nii rek wala ñu koy wax mais lii nag dañoo jug ak image bi ñu jugee di wane image yi nit ñi ñoo gis image yi ne lii jaaduwul jaaduwul googu moo tax ñu ne kon nañ ci taxaw ngir defar ko beneen bi ci topp mooy dañ doon dem ci kilifa yi di leen ko yëgal yàlla dogal kilifa gi ñu ko dem wax la ko ba nga rafetlu ko ñu ñaan la nga sànni ci ay kàddu ndax am na ci ñoo xam ne ku ci nekk yoon yi moom ni muy doxee ku nekk sa kilifa ngay déglu kilifa guñ ci dem ñu ñaan la ay kàddu nga wax ci wax ju rafet ba pare eh, wax ci loo xam ne murid bu ko dégg dana tax nga am yaakaar ci liggéey bi eh, loolu bokk na ci li nga xam ne dafa dooleel liggéey bi ndax sëñ Muntaxa mi keroog bi ñu demee ci moom boobu toogul jotaay suñ tubaab bi bañ ca demee mu ci kàddu yu soññe yu am solo ba pare cotiser cotiser juróom-ñeenti nit yoo xam ne nee na ay murid saadeex lañ te te bëgg nañ te mënuñu moom mu joxewaale leen keroog mu yëkkati xaalis joxe ko vidéo yooyu ñu jël nag ak eh, ku demee nag sëñ Cheikh xalifa sëñ Abdou Khader Euh, sëñ Abdou samat moom Serigne Chouaïb ak kilifa yu bari ku ci nekk ñu sa kàddu kàddu yoo ne bu ñu ko boolee monté ko bi ko nit ñi seetaanee ku ko seetaan rek da ngay daal am confiance ci liggéeyu Touba ca kanam bi rawatina nag kàddug sëñ kàddug sëñ Muntaxa gi euh, am na ay jafe-jafe yoo xam ne nekku lañ ndax projet bu fi mu démarré moo sew xam nga loo xam ne euh, dañ na ci Fallou Ndiaye mii la démarré te fàllu Ndiaye ñu ko xam ci dëkk bi bariwul ji mosuma fee jiite lu rëy nit ñi xamuñu ma ku ma ci mbir mi xam Eh, suñ ne ku mel ni moo yëkkati lii faw nit ñi taxaw seetlu ci kii lu tax moo yëkkati lii est-ce que du ay dóor est-ce que amul lu ne ci ginnaaw eh, te boobu eh, ku ñuy wax sëñ Cheikh Abdou Bale moo sox moo sëñ Cheikh mu sëñ Cheikh Gaïndé comme ajouté woon naa ko ci groupe bi mu ciy wax ñu bari sax dañ ne woon moom sëñ Cheikh Abdou moom moomu groupe WhatsApp bi ngir dafa dafa soxla maire Touba ngir daane ko ndax liñ doon def di di di di di di di di wane loo xam ne jaarul ci dëkk bi ñu bari sax dañoo jàppoon Touba Ca Kanam dafa jóg pour xeex maire Touba Cheikh Abdou bu ci dee waxi dañ na Cheikh Abdou dafa soxla maire Touba moo tax mu créé Guruwat fekk moom créé ko ñun rek loolu nag indi woon jafe-jafe ci yu bari jàpp ne Touba ca kanam dafa jóg ngir xeex dëkk bi ñii jàpp ne sax Touba dafa jóg ngir xilaafa gi fi nekk sax dafay defar dara Touba ca kanam jóg samp ngir kii lu ne wax nañ waaye boobu euh, li ñu ci taxoon a jóg rek mooy gis loo xam ne jaadul ñu jàpp ñun taalibe ñu ñoo ko defaral suñu bopp loolu nag nit ñi dañ ko comprendre moo tax bi sëñ Abibu ñëwee ànd ceeg ñun kilifa yëpp joxe seeni accord ba pare def ay vidéo ñu jël video yi def ko ci internet bi dem fay télé ñu teg ko bi ko mu yi gisee nag loolu dal seen xel léegi nag mu des nag résultat parce que nit ñi moom boo leen dee laaj lu ñu mën di ko nga ko war def fu ñu xam ñu ciy teg seen bët yàlla def nag loolu tamit luñ teel a xam na ndax mbooloo yu bari yàgg nañ fi am waaye ñu si bari jafe-jafe yu am mooy ñàkka a leeral Touba Ca Kanam nag bu ñu jógee concept boobu lañ njëkk a jël luñ gis jaaduwul dañ koy wane waaye lépp loo xam ne saafara ne dañ ko wane nit ñi seen alal danañ ko laaj waaye fu ñu ko dugalee dañ ko jël won leen ko biñ commencé def loolu nag di wane di wane ñu bari ñoo xam ne au début woon nañ lii ay dóor la ñi dañu dajal xaalis murid lekk bu ñu commencé gis ñuy réaliser di wane ci lañ commencé dal xel daan na lii nag wax dëgg yàlla leer na nañ ñun moom suñu xel dana ci ak it sëñ Abibu moom sëñ Fàllu mi nga xam ne tamit bu mu ci dugg see ñu gis ko ci te kenn masu ko cee xam ci lenn loo xam ne daree caaxaan la kenn masu amul lenn loo xam ne lu ñuul la loo mën a wax ci moom it bañ ko ci gisee ñu bari nee nañ lii kat bu tondaa sax sëñ Abibu moom lu mu bokk lu ne rek moom dañ ci rafet jot ay ñoom sëñ Abdulaat Abibu ay kilifa yu bari ku leen ci gis rek da ngay daal di wóolu mbooloo waaye bu yoon suñu jëmmi kase kase moom xëy na eh, yëf yi du mën a agsi waaye comme mbirum suñu tuwaala moom mooy préparé lépp ginnaaw bi ñu ko xalaatee mu andu ay kilifa yoo xam ne ay nit ñu crédible lañ ñu ànd ak ñun liggéey di ko piloté loolu tamit bokk na ci li nga xam ne jafe-jafe bu ñu amoon rek loolu ñëw na dindi ko sëñ bi di gisoon ni aussi tamit euh, dañoo xëy rek dégg ñu ne euh, Touba ci kanam bi amoo leen ci woon ndigal mhm. ndigalu sëñ bi mu yaatu woon loolu ci dëkk bi ñëpp jot ci mhm. léegi affaire boobu mbaa indiwutoon ay euh, kii rëkk-rëkk ci liggéey beeg yooyu noonu keroog bi ma ko déggee fekk damaa yeew ni sama lal rek sama téléphone sonné ñu ne déglu ngeen revue de presse bi nee nañ sëñ Sidi Moxtaar joxewut ndigal ci liggéey bi Touba kanam kon yéen seen liggéey bi moom saa yàqu na das na waaye man euh, boobu man en personne man Touba ci kanam mosuma ci am ak tiit ndax dama xam ne lu sëñ Touba nangu la te lu sëñ Touba nangu képp ku fi nekk sëñ Touba yow sax yaa ma koy gën a xam ndax euh, man bi mu démarré ci man euh, ci semaine boobu noonu bi ma créé groupe WhatsApp bi dugal ci vidéo yi semaine boobu dama tëdd guddi ma gént dem ci barabu sëñ Touba bi ma agsee bi ma jubee barab bi ci biir gént gi xam nga gént la rek moom dañoo yëkkati barab bi. yëkkati pavillon bi ma dugg bi ma duggee ci biir yàlla dogal sax maa ngi yor caméra nii boobu noonu bi ma dugg see eh, mu mel ni sëñ bi day wax man ci biir barab bi daal na ma tegal sa loxo ci suuf ci barab foofu suuf ma teg sama loxo suuf si bi ma tegee sama loxo maa ngi sentir sëñ bi nu muy noyyee ma teg sama loxo mu yàlla ma tëbal ci suuf si ma tibb suuf def nii sama yére def ci mu yàlla ma demal fu sama tur yi àgg Tuubaa ci kanam dana fa àgg loolu sëñ bi wax koog man ñu yëkkatiwaat pavillon bi ma génn bi ma génnee ci laa yow ci laa xam ne kon lii moom du ay caaxaan lii moom mbirum Sëñ Tuubaa bu wér la ci ci ñu tegaat ci ñaari fan ma tëdd guddi ma génn Sëñ Fàllu mu ne ma liggéeyu tubaa ci kanam bi dinaa ko ànd ak yow loolu ma Sëñ Fàllu wax boobu Sëñ Abibu ñëwagu ci euh, moo tax <coughs> bi mu démarré vidéo yi génn mu commencé lancé wu di dem fépp Sëñ bu ñëw nit wax ko ba mu ñëw dugg ci tey doomi Sëñ Fàllu man ma xam ma am certitude na kon lii mat na sëkk lu sëñ Tuubaa nangu la ndax sëñ Fallou newoon na dana ci ànd sëñ abi bu ñëw na indi ci xalaat boo xam ne moom moo war a doxal liggéey bi moo tax keroog bi sëñ bi ñu waxee ne sëñ Sidi Maxtaar wax na loolu sëñ Habib bu def ci mat gu am gu mat sëkk comme demoon nañ fa ba mu jox ñu kàddoom ñu ne comme dégg nañ lii dañ fay delluwaat suñ fa delluwaatee comme lii liggéey sëñ Tuubaa te moom moo fi sëñ Tuubaa laaj ko su fekkee loolu ci kàddoom la jógee ñu yemale ko foofu su fekkee nag juguwut ci kàddoom xëy na wax ju jóge feneen la su boobaa it ñu ñu ñu ñu ñu continue liggéey bi yàlla dogal ñu dem ca ànd ko keroog délégation ba mu solo sëñ tàkkoom sëñ fàllu sëñ bi ñu demee sëñ bu leeral ko ko ba mu ko ko leeralee sëñ bi daal di wax ne man waxuma ko du ma wax di dellu ginnaaw mën ngeen ko wéyal loolu nag ba mu ko defee comme defoon nañu revue de presse ñu ñu demaat bindaat ko daal xamal na kat sëñ bi joxe ne ndigal ci Touba Ca Kanam loolu wax ko woon ñu ñu continue liggéey mais nag amoon na ay nit ñu ko déggee dafa indi jeex jaax seen kii sëñ bee ko wax ko dañoo téye seen loxo waaye bi ñu biñ bi ñu démarré waatee continuer ñëpp xam nañ ne loolu xëy na lu baax moom fu mu juddoo rek faw seytaane indi ci ay kii waaye mbirum seytaane loolu rek waaye nag eh, sëñ bi dañuy def tawfeex ba loolu dafa sax eh, si walla liggéey Touba ca kanam biñ déggee rek ñu naan Touba ca kanam sëñ bi ñu bari naan luy Touba ca kanam di ko gëstu ci biir gëstu googu ñu xëyaat ne Touba ca kanam sëñ bi moo joxe ndigal lañ ko nangam am na ak yokk goo xam daal indi woon na ko ci biir Touba ca kanam wax dëgg yàlla. waaye benn boobu rek lañ ci mës a am ci benn jafe-jafe boo xam ne am na jeex jaax yu mën doon waaye diiru boobaak léegi de wax dëgg yàlla liggéey bi mu ngi yokk bu baax. ñu bëggoon a xam tamit euh, ndax euh, projet bi fii ñii ci biir Touba gi nii euh, nit ñaa ngi ciy participer mais moyen de yi ñu ciy def maanaam comme par exemple localité yi nit ñi ni ñu ci war a da ngeen di tëral ay kuréel foofu wala da ngeen di dem di xam nga Touba dafa localité boo xam ne peut-être ñi nga xam ne njàng mi bëriw fii pour ñu mën a utiliser. ay moyens yi comme euh, orange yi ngeen doon utiliser pour moyen téléphone yi ak transfert yi ci banque yooyu noonu euh, pour moyens yooyu loolu laa bëgg nga waxtaan ci ñu am ci ay leeral. jëm ci wàllu participation bi ndax euh, li ñu laaj loolu sax bokk na la ci tax ñu ubbi compte bancaire ndax compte boobu ñu ubbi coow li amoon loolu moo ko waraloon ndax dañu ubbi compte banque. ñu ne Touba Ca Kanam wut ubbi compte yoonu mu benn compte rek la war fekk boobu comme ay ñaar téeméer la ñuy laaj te nit a ngi fu ne foofu ñoom fu ñu ko daje loolu moo waraloon ñu ubbi compte banque compte boobu bokk na ci li waraloon coow li mais nag dañoo xool millier bu ci nekk nañuy dundee ñu fexe adapté wu ca ñooñu ndax dañuy laaj ñaar téeméer ñaar téeméer yi gox bu ne ak nañ ko mën a joxe am na ñoo xam ne dañ koy mën a joxe par orange money ndax mën nañ ko am ñoo xam ne xamuñu sax luy orange money am ñoo xam ne ware lañ xam am ñoo xam ne joxe nii ñu bind leen kayit lañ xam am ñoo xam ne dañuy joxe sax te soxluñ kayit dañoo fexe ba milieu bu ci nekk ñu xool ñoom nañ ko mënee ñu fekk ci leen ci lool bu dee ci lu jëm ci wàllu Touba boo xoolee Touba ay mbootaay ñoo fépp surtout soxna yi nga xam ne ñoom ñoo mën ci Touba ci kanam mbootaay dañuy dem ci meeru mbootaay waxtaan ak ñoom ci Touba ci su ko defee ñoom dañuy def seen mbootaay mbootaay ku ci nekk ñu def sax mbootaay euh, ñu jël seen carnet ku nekk joxe su weer dee nga xam ne ñoom def naa bëccëg dañuy laaj bëccëg fukki dërëm su weer dee muy 1500 ñu jël 500 bi delloo la ko 1000 francs bi ñu daggal la si Touba ca kanam nga xam ne mbootaay yëpp noonu lañ bu weer ñu ñëw ñu indi loolu waa Daaru Xadim Daaru Xadim ko njëkk a def ñoom ba mois bi passé rek versé nañ 2 millions nga xam ne chaque fin ñu ngi versé noonu lañ ko ko def ci Touba yëpp ba dem ci daayira yi tamit waxtaan ak ñoom daayira yi fu ci nekk ñu dem fa sam fa kenn ko xam ne moo fay nekkal Touba ca kanam su weer jotee moom mooy dem ci daayira laaj nit ñu jox leen ñu bind am na ñoo xam ne dañoo jël seen engagement volontaire ñëw jël fii ay dem seen koñ di nit ñuy dagg ñu ñëw fii ci bureau bi di verser eh, ñu leen joxar ay bloc ay ay bloc dem am na ñoo xam ne tamit ci banques yi lañuy la ñuy verser comme lépp dañ koy jaaral ci communication rek dañuy fexe ba ku ci nekk noo ko mënee rek ñi mën a nekk ci mbootaay am nañu soo xam ne samp nañ leen fa am na foo xam ne def nañ fa ay siège lu mel Dakar def nañ ay def nañ am nañ am nañ fi am nañ siège bi dagg ay reçu ñu ki am na ñoo xam ne Orange ne la ñuy dem jaaral fa seen xaalis am na ñoo xam ne Tigo Cash am na ñoo xam ne dañuy dem ci banques yi ndax am nañ neuf compte bancaire dañuy dem ci banques yi def seen i versement ñi nga xam ne tamit amuñu Orange Money am nañ numéro boo xam numéro Orange Money da ngay dem ci ci ci kii orange casque Orange Money joxe ñu jaar ko ci ci ci numéro moyens yëpp daal lañ am yoo xam ne euh, nit ñi am na ñoo xam ne dañuy doxal seen bopp ñëw ba ci siège bi daal di joxe soo demee si jumaa ji tamit def nañ fa ay stand yoo xam ne ñu ngi ko jëndoon lu toll ay vingt stand commencé nañ ko tasaare ci dëkk bi sax nga xam ne fu waay doxit soo geesoo gis Touba ca kanam mën a jàdd jox sa ñaar téeméer ñu bindal la sa reçu nga def noonu daal la ñuy def collecte bi su weer jotee ñu dajale li ñu am yëpp bitim réew it noonu lañu def euh, daayira ya fa nekk kër sëñ tubaay ya fa nekk fu ci nekk ñu contacter leen ut fa kër sëñ euh, ut fa jëwriñ bu ñu fa nekkal nga xam ne fu weer dee moom mooy dem soññu daayira bi ñoo ñu joxe bu dajalee daal di envoyé bu envoyé bu weer jotee ñu dem ci banque yi xool li nga xam ne moo fa jaar dem ci orange moom tiw dajal lépp daal leeral askan wi fu ci nekk la fa jóge ñu mën koo leeral nit ñu daal ko mhm. euh, waaw am Mbàkke amagul stand waaye nag am na ay ay ñu ñu fa nekkal ay collecteurs yoo xam ne ña nga fa ndax euh, mhm. euh, waaw xam xam xam nga Mbàkke day yenn saa dem am sax ndax Mbàkke ni ñuy participer xam nga Tuubaa ak Mbàkke dañoo dugglante eh, day am ñoo xam ne dañoo nekk Mbàkke ñu jox leen ay reçu ñoom buñ jaayee indi buñ na Mbàkke nanga la parce que day mel dafa tuut fekk Mbàkke am na seen cotisation yoo xam ne jaaru ci ñoom dafa jaar ci waa Tuubaa dafa am ñoo waaw waaw voilà amu amu amuñu ay stand mais actuellement am nañ benn projet boo xam ne ay kiosque la ñuy defar ay kiosque yoo xam ne yu weñ lay doon moom lañ bëgg fu ab garage nekk fu marché nekk fépp fu mbooloo dajaloo ci Sénégal ñu def fa stand comme qu'est-ce que Orange Money loolu lañ bëgg samp actuellement ni mooy mooy phase bi ñu toll ndax bi nga xamee samp nañ kuréel yi nga xam ne lii ci mbootaay lañ ko def yi ay volontaire lañ leen dañoo bëgg def ay casque nga xam ne boo wàccee ci garage yi soo demee ci garage taxi boo demee ci garage sareet fu mu fu lieu public nekk nañ ñu def fa casque Touba Ca Kanam boo xam ne dañuy jël ay nit teg leen fa ñuy collecteur Touba Ca loolu yaakaar naa suñ ko defee dana gën a yow waaye loolu am nañ jafe-jafe boobu dëkk yu bare bare ba da ngay gis ku la woo dama bëgg participer Touba Ca mais gisuma fii ku ma ko jox nga xam ne dañ lay wax ne jaar la ko ci Orange Money wala Tigo Cash boo ko amee en attendant ba ba ñu mën a am ku ñu samp foofu waaye képp koo xam ne am nga carte membre Touba Ca Kanam foo mën nekk yow ñun ak yow ñoo bokk ci liggéey bi am nga droit ñëw fii jël bloc wala fa nga nekk ñu yónnee la bloc ngay jaay foofu di verse ñu lay envoyé ay bloc noonu lañ ko tàmbalee mais nag du doy moom ndax Touba Ca Kanam moom àdduna la ndax murid ñu ngi fépp am na ñëwee daal fépp fu am murid nekk danañ fexe ba boo bëggee participer ci Touba Ca Kanam mu doon loo xam daa la jege lool soo génnee rek gis ko waaye jafe-jafe boobu moom am nañ ko bu baax a baax. ak arnaque bi nga xam ne euh, ci affaire yëpp la am ndax Touba ci kanam mi ngi dundu lool parce que euh, am na ci ñuy wax ne Orange Money bi am na ñoo xam ne dañ leen di laaj ay numéro te man euh, d'après ni ma ko gisee c'est du doonul numéro bu ñuy def. doon numéro yi da yor sa numéro tapé daal di bind di wax bëgg envoyé dugal moo dugg am na ñuy laaj ay numéro aussi nit ñi ñu ngi koy laaj ci biir quartier yi. ndax ñiy laaj ñëpp yéen leen jox autorisation ñu laaj ak nan lañ mën a ràññee ki nga xam ne euh, waa Touba ci kanam ñoo ko yónni parce que loolu da ci am solo parce que loo gis rek am na koo xam ne ni euh, loo ci xalaatee lu rafet am na koo xam ne xalaat na ci lu ñaaw bu jub bu ngir bëgg cee defar boppam loolu am na ci ak carte yi nga xam ne yéen a koy joxe carte yi fii lañ koy wutisee ci biir fii nii lañ koy wutisee yéen a koy jox nit ñi ñu dem yóbbu ko wala ku ci nekk dangay jël dem imprimer sa bopp ñëw joxe ay carte loolu bëgg nañ nga indi ci leeral bu baax ndax daanaka am nañ ay kii yoo xam ne ni euh, gis nañ ko ci te xamuñu nu demee. lu jëm ci wàllu arnaque orange mu ne amaguñ ko ndax euh, dañoo demoon ba orange ñoom benn partenariat boo xam ne euh, ci lay nit ñi di jaarale seen participation loolu nag lu jëm ci wàllu sécurité moom orange moo ko gàddu ak léegi it gisaguñ ci benn benn benn benn faay boo xam ne. am na ci euh, li nga xam ne joxe nañ ko muy numéro boobu dafa am ñoo xam ne duñ ko comprendre surtout suñ côté bi Touba boo xoolee Orange Money yeneen régions yi ñoo ci gën a euh, ëpp lu ñuy participer ndax Touba moom ba tey wóoluwuñ yu mel noonu ndax dafay masa am yu mel noonu dafay masa am moo taxoon nit ñi ragal ko mais euh, code bi jees 144 jees la 621 jees soo ko defee dalay envoyé benn code lu ñuy wax code marchand code boobu mu lay envoyé nag moom la nit ñi ragal muy 20 90 95 loolu code Touba Ca Kanam la dièse 144 dièse 621 dièse soo defee ekkee lay envoyé benn code ne la dugal code bi 20 90 95 soo defee code boobu nag ci la indil na nga participer ci Touba Ca Kanam 1000 francs jëm kaw su ko defee nga dugal mu wan na la sa participation effective dem na ci Touba Ca Kanam euh, euh, orange moom loo ci dugal en temps réel ñun lañ koy am ñun nag waa orange ñoo ci bu duggee rek ci saa orange dana ko am waaye à partir suñu machine fii danañ gis ne numéro sàngam dugal na nga xam ne danañ la mën a woo sax commencé woon nañ sax ku dugal ñu woo la mais ni muy duggee moo bari ba su soo bëggee woote doo mën a woonoo ñëpp ndax da ngay toog léegi une minute lu toll cent personnes dugal boo woowee kii bala ngaa ko yeneen ñeneen dugal moo taxoon woote bi woote bi xaw a xaw a jafe waaye boobu moom wóor na beneen bi tamit muy 78 544 33 33 boobu tamit wóor na boobu dañ ko wutal ñoo xam ne ndax jees 144 jees 621 jees yow soo sa téléphone mënoo cee envoyé am ñoo xam ne amuñu orange money kon moo tax ñu numéro 78 544 33 33 nga xam da ngay dem ci casque orange money bi na ko damay envoyé Touba ca kanam jël numéro bu jox ko su ko defee mu dugal ko euh, bu dee lu jëm ci wàllu Russie yi Russie yi tamit euh, sécurisé ndax Russie yi euh, Chine lañ ko defarloo moom ay numéro fi mu toll nii Russie boo for ci mbedd mi boo ko foree woo ñu nañu numéro sàngam dañ la wax ne Russie bi diw sàngam lañ ko joxoon bu ci nekk kii nañ ko xëy na it loolu mën a ñàkk ndax yenn saa yi sax da ngay dégg ku am na ko ma romb ci gaara sàngam di laaj Touba Ca Kanam ndax ndax nit ñi ñoom ñooy sécurité Touba Ca Kanam fi mu toll ba Dakar ni dalaw sëñ bi na nga def man daa am ku ñëw fii dama jaari Touba Ca Kanam ndax wóor ma numéro blog bi bu ko joxee rek automatiquement da ngay xam ne blog bi diw lañ ko joxoon yenn saa yi nag nga jox nit blog mu dëkk Touba te dem Dakar gàddu blogam yóbbaale ko su demee foofu di ko fa jaay nit wala boo xool da ngay xam ne diw la soo ko wooyee mun a diw laa ko joxoon da ko yóbbu Dakar di ko jaay mais nag jàpp guñ koo xam ne dafa defar ay blog di wër ci Touba di wër Touba ci kanam di ko di ko jaay du mën a amul nag waaye gisaguñ ko te ñu ngi ci def suñu kéemtalaay kàttan fexe ba di ko sécuriser ndax bloc yëpp dañ ko dem tiré doo loo dem ba Chine defarlu ko fa indi ko nga xam ne moom unique la ba pare fii fii fii la ñuy identifier yëpp mu doog a génn fu mu mën dem ba ci bitim réew muy Italie muy Amérique muy fépp bloc yi fii lay jóge Touba ñun ñoo leen ko jox jox leen ko identifier ko nga xam ne reçu bu nit jënd bu la neexee wooteel na sama reçu numéro temps la ñu xamal ne diw moo la ko jaay parce que diw moomu lañ ko joxoon diw moomu it dafay verser te reçu yi tamit day am suus da ngay bind nit ki bind ko ci suus suus bi day ñëwaat fii dañ koy enregistré su ko defee loolu daal lañ toll ci lañ tollagum waaye amaguñ benn fay boo xam ne du ñàkk na xëy na nit génn di laaj Touba Ca Kanam nit jël àddiyaam jox ko mu jël def ci wasam loolu moom soo duñ ci mën dara ñun lañ mën dara rek mooy ay reçu daal lañ joxe képp kuy participer ci Touba Ca Kanam soo gisee borom reçu yi jël ko ñu bind la reçu jox la nga téye loolu moom woon na waaye képp koo xam day wër di maajaal naan Touba ca kanam laa laaj nga jox sa alal noonu boobaa moom yooyu yaa saan sa alal waaye Touba kanam moom lépp lu muy laaj ci kayit yu leer ndax dañ koy enregistré te dañ koy saytu. nit ñi ñi ngi dugal seen xaalis affaire bi projet bi mi ngi avancé léegi ñuy laaj ba xam Touba depuis demi 2016 la woon ngeen démarré woon programme bi ba léegi euh, léegi ñuy laaj depuis lors 1000 francs yooyu nit ñi di dugal euh, yan pro yan kii yan projet la réalisé fii ci dëkk bi euh, sell bi di Touba. ndax euh, déjà am na quelque yoo xam ne nii gis nañ ko fii yoo xam ne inauguré ngeen ko ñu bëgg ngeen dellusiwaat ci yooyu ñu xam. réalisation bi euh, ñun sax dañ ko teel a commencé ndax au dañ ne woon dañuy dajale ba am li ñu soxla doog a tàmbali mais ñu demee tuuti euh, dañoo gis bi ñuy démarrer nit ñi commencé nañu ñëw mais biñ demee tuuti nit ñi dañ na tekk dañ toogaal waxtaan ñu daal dafa mel ni nit ñi dañuy xaar li ñu joxe ñu teg ci seen bët boobu amaguñ sax cent millions yu mat instant boobu noonu. ñu daal na kon te ñoo jéem a jëmmal dara tàmbali dara ndax nit ñi kat suñu tàmbali dara dañu xam ne Touba ca kanam li muy laaj lii la ci fas yéene boobaa danañ gën a sawar euh, ci lañ dem ci sañ Bass euh, porte parole waxtaan ceeg moom ne ko dañoo bëggoon daal am ndigal sañ Sidi Mokhtar ngir tàmbali dara ndax dañoo gis ne euh, nit ñi ñu ngi joxe waaye temps yi joxe bi xaw naa wàññeeku ñu bëggoon nag tàmbali buñ tàmbalee xëy na nit ñi dañ dañ kii ñu ne nag kon lan la ñuy tàmbalee Euh, ci biir loolu am nañu benn commission boo xam ne lépp lu jëm ci wàllu étude ak réalisation déjà ñoom waxtaanoon nañ euh, ci ci ci ci sept projets yoo xam ne euh, ñun bu ñu tàmbalee rek ci foofu la ñu war a teg suñuy tànk sept projet yi nag am na yu ci gën nekk priorité am na ci yoo xam ne gënuñoo doon priorité ci biir loolu ci reportage yi ñu doon def di dem ci sancaan yi ci dëkk bi di laaj nit ñi seen i jafe-jafe bi ñuy laaj ci lañ dem ba xam ne Euh, nit ñi jafe-jafe bi nga xam ne mooy bi gën a far dëgg-dëgg mooy seen wàllu wér-gu-yaram ndax euh, lu jëm ci sancaan yi dañuy dangay da ngay dem fenn ñoo la sama soxna biig euh, bi mu tollee digg bi ñu ko yóbbu hôpital sareet lañ ko jël teg ko fii li wax ay jafe-jafe yu métti am ñoo xam ne naan amuñu lu ko yóbbu heure boobu fii la mujj amee doom doom ju dafa mujj dolli moom lu métti bi ñu toogaan ak sëñ Bas ñu toog ñu waxtaan bal nañ ci njëkk a commencé ci set projet yi ñu ci waxtaan kii wax li kii wax li bañ ne nañ defar ay poste de ndax d'après daal bi ñuy gëstoo nit ñi liñ gën a soxla mooy fu ñuy fajo rawatina quartier yi nga xam ne dafa sori ñu ne kon euh, ñu wax Cheikh bas na ko kon loolu daal bu ñu ci mënee am ndigal dana baax mu dem sëñ Sidi Maxtaar bi mu ci demee waxtaan ak moom sëñ bi jox ci ndigal ne mën nañ ko tàmbali boobu 100 millions lañ am biñ ñëwee ñu ne kon waxtaan yóbbu ko ci groupe whatsapp bi wax nañ sëñ bi jox nañu ndigal léegi dañuy commencé ñeent post santé poste santé bu ne 25 millions ndax boobu 100 millions lañ am ñun ñëpp ànd ci ñu dem ministère de la santé ñoom ñoo ñu jox plan yi bi ñu joxee plan yi ñu ñëw fekk am nay groupe ingénieur yu ñu am ñu bokk ci kii bi ñoom ñu amélioré ko bi ñu ko amélioré ba pare nag ñu ko xaymaa ñoom ñu xayma nag post bu ci nekk dana jël cent cinquante million ndax dañ ko bëgg mu nekk ay poste santé yoo xam day moderne ba bu ëllëgee post boobu mën a nekk centre de santé mën a nekk hôpital euh, ci loolu nag comme mbirum suñu tuwaa moom Euh, ñun Mouride moom suñu yoon nekk dañuy yéene rek sëñ bi mooy mottali boobam comme boobu 100 millions la ñu amoon te ñeent post lañu taxawal te post bu ci nekk 150 million kon loolu 600 millions mu ngi taxaw moom ñu ne kon bisimilah nañ démarré euh, sëñ bi jàppal ñu bis daal na ñeent fanu safar mën ngeen koo tàmbali euh, yabal sëñ Muntaxa ngir mu ñëw tegal ñu xeer bi sëñ Muntaxa ñu fekk lu jiitu loolu dem nañ ci docteur Dieng bi nga xam ne moo jiite district sanitaire bu Mbàkke bu Touba ñu xamal ko dañoo bëgg tabax ñeent poste santé mais comme ñoom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram fi ñoom ñoo ñuy wax yan quartier ñoo ko gën a soxla ci sancaani ñoom ñoo ñu tànnal Lansar ak Boborel ak Kër Gol ak Daaru Xaddim ñee nag Lansar moo gën a doon priorité ñu ne kon nañ tàmbalee foofu Sëñ Muntaxa ñëw tegal ñu xeer bi keroog bi ñu teg xeer bi rek dajal lañ fekk tolloog 6 millions ak lu bari ci ciment ñu tàmbali liggéey boobu bi ñu gisee bi ñu tàmbali bi ñu lancé yi nag gis ne nit ñi commencé di ñëw di di joxewaat Eh, ci biir loolu nag eh, ñu demaat ba ci biir eh, sëñ Abibu am xalaatu moom it ci wàllu environnement bi mbalin mi tamit gis nañ dëkk bi ni mu taxee moom it nañ ci taxaw comme dèjà mu ngi woon ci biir projet Touba Ca Kanam ne kon nañ ko ci dugalaale ci biir en attendant mën nañu continuer tabax ba pare jënd oto yooyu pour mbali dëkk bi tax na te loolu tamit dana baax ci communication Touba Ca Kanam ndax nit ñi kat bu ko tey di daan romb ñu gis Touba Ca Kanam da xam ne seen ñaar téeméer mu ngi nii ci loolu nag ci lañ jënd juróomi kamion mbalit yoo xam ne keroog bi ñu ko indee fii Eh, ñu yóbbu ko jébbal ko sëñ Muntaxa eh, mois boobu Touba ca kanam presque ay 20 millions la am par mois ay 25 ay 30 mais mois bi ñu jëndee camion mbalit yi am nañ 60 millions kon nga xam ne nit ñi moom li leen sawarloo mooy seeni alal nañuy gis fi ñu koy fi ñu koy def ci loolu nag ci la nga xam ne kon yëf yi moom jaru dajale ñun lu ñu am rek nañ ko xëpp ci liggéey sëñ Touba ci loolu nag ci lañ commencé eh, yàlla def liggéeyu poste santé bu Lansar bi noppi ba kër bi ñu waree jënd matériel bi sax ñu def offre yi ne lii ak lii lañ bëgg am mbokk taalibe yu nekk Amérique mooy waa fondation 221 ñoom bi ñu ko yëgee ñoom ñoo jëndal matériel bi yëpp ci valeur 271 millions yónnee ko Touba ca kanam def ko addi Sëriñ Touba moom lañ yóbbu foofu bi mu ñëwee sax matériel bi dafaa ëpp ba dañ koo mujj jël séddale ko hôpital yi nekk Touba la ci des ñu ñu bàyyi ko foofu euh, yeneen chantier ñu ngi en cours xëy na fii ak ay cinq mois yaakaar naa danañ danañ inauguré bu bu Kër Gol ak Boborel ndax yooyu actuellement bu ci nekk kuuda nañ ko ba pare eh, finition yi rek moo ci des daaru xaddim bi ñu mujjate xeer fan yi tàmbali nañ ko yooyu yëpp ci réalisation Touba ca kanam la eh, lu jëm ci wàllu social eh, ndax Touba moom dëkk la boo xam ne booy xool 90 pour cent yëpp ay néew doole la ndax ay sañtaan la ñoo xam ne dañoo bàyyi seen dëkk ñëw fii ngir yaakaar sëñ Touba loolu it dañ ci am taxawaay bu am solo ba démb rek am na journée bu ñu doon def dajale lu tolloog 400 famille kenn ku ci nekk ñu jàppale la ci euh, ci loo xam ne loo dunde la ci ci ci weeru koor gi euh, lu jëm ci wàllu ndox it ñu ngi ciy def ay jéego yi am solo euh, sancaan yi loolu sëñ Muntaxa moo ñu joxoon ndigal wax ne dafa bëgg daal sancaan yi ñu leen jàppale ci wàllu ndox ndax manqué neen ndox te moom loolu bokk na ci yéeneem lu mu war a liggéey kon nag nañ ko ci jiitu ba bu paree ci liggéeyam bi mu mu naal muy masaalik ak àggali jumaay yi ji ak université bi su ci noppee mun ñoo fekk si foofu loolu it boobaak léegi ñu ngi ci taxaw bu baax ba ci màggal Touba gi rek génne nañ tolloog fanweeri million def ko ci fukki quartier yoo xam ne dañ leen a dañ leen yóbbul ndox te ba nii nii arrêté wuñ actuellement ne am na benn quartier boo xam ne lu tolloog 10 millions jëndal lañ ko matériel ci lu jëm ci ci ci wàllu ndox euh, loolu ba tey euh, ci lu jëm ci wàllu leeraayu dëkk bi ndax Touba bokk na ci dëkk yi gën a ci Sénégal Touba moom route national bi kese mooy leer route national bi te route nationale li muy leer leer lampe bu ci daanu fii at boo ñëw da nga ko fekk fa mu tëdd mu tëddaat fa moom du ñu saytu euh, loolu nag ci jamonoy màggal Touba gi euh, Sëñ Muntaxa waxoon nañu moom ci boppam moo ko seetlul boppam lëndamaay dëkk moom foo ko takk weesu na ko daal nag lépp lu ngeen ci mën ci def ko rek ngir mu leer def leen ko ci boobu ci lañ amoon xalaatu euh, fexe ba murit yëpp participer ci ñu ne woon buntu kër gu nekk benn lampe. ku nekk def sa buntu kër benn làmp boo jullee timis ba pare nga taal ko boo sëlmalee fajar nga fay ko def ko addi Sëñ Tuubaa ndax loolu lañ jàpp ne euh, ci daadaar moom moom mooy leeral dëkk bi ndax buntu kër gu nekk bu seen lampe tàkkee rek mbedd yëpp day leer ndax peut-être mbedd yëpp amuñu ay pota lampe waaye buntu kër gu nekk mën nga def lampe loolu bi bi ñu ko waxee ñu bari def nañ ko teewut it Touba ci kanam jën lu toll ak mille lampes lu toll valeur 15 millions ñu indi woon ko ci dëkk bi def ko ci ci buntu ay lampes LED yu leer yoo xam ne wax dëgg yàlla gisoon nañ njariñ ba ci ren ji incha allah fas yéene cee jënd 5000 yoo xam ne dañ ko jënd tamit tasaare ko ci dëkk bi nga xam ne bëgg nañ dëkk bi daal ni ko sëñ bi bëggee ci leeraay mu leer bi suñu demee ba àgg ci mën a def ay pata nag ci dëkk bi yëpp su boobaa danañ ko danañ danañ danañ ko ci mën a def loolu daal bokk na ci li nga xam ne euh, Touba ca kanam mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy réaliser ci dëkk bi waaye loolu lépp nag asaka la ci li nga xam ne bëgg nañ ko ndax liñ bëgg dëgg-dëgg mooy weer wu ñu am ñaar milliards at mi 24 milliards bu ñu demee ba atteindre suñu objectif boobu kañ la nag waaye bis bu ñu ba atteindre ko incha allah liñ bëgg lépp lépp danañ ko danañ ko def université bi sëñ mun Muntaxa di def ñuy ñaan euh, sunu borom def ci tawféex ba mu àgg ci jàmm ci kanamu sëñ bi keroog bi sëñ bi te xeer ñun demoon nañ li njëkk def mooy dañ ne dañuy yóbbul ñaar téeméeri million cent millions euh, jox ko sëñ bi ngi tàmbalee ko keroog ñu yóbbu ko sëñ bi bëgg ci lool ñaal ñu ci wax ne euh, yaakaar gi mu am ci Touba ca kanam fi mu toll nii jël nañ fa benn bâtiment boo xam ne Touba ca kanam moo koy defar bâtiment bi ñu ngi ko estimé ci cent millions déjà jox nañ ñu plan yi ba jox nañ ko suñu ingénieurs yi incha allah fii un mois liggéey bi dana démarrer te bëgg nañ koo liggéey ba mu àgg jël caabi jëbal ko sëñ bi mu toll ci 800 millions xam ne ñoo ko bëgg a defar yooyu yëpp nag euh, liñ ci jublu mooy euh, nit ñi liñ ñu jox ñu koy li tax ñu koy jox mooy sëñ Tuubaa ñu delluwaat ko sëñ Tuubaa moo tax ni ko sëñ Abibu waxee euh, xaalis alalul Tuubaa ca kanam moom moom dërëm bu ci nekk lekk kook naan sàngara la yemale kon loolu euh, dafay dalal xelu murid yëpp ndax moom mi nga xam ne moo moo jiite liggéey bi bu yemalee lekk ci ab dërëm ak naan sàngara kon xaalis bi moom fa mu nekk wóor na tey lépp lu ñu ciy génn fu leer leer lañ koy teg ndax dañoom ay commission lu mel ni commission finance lépp lu ñu war a def bu ñu ko waxtaanee ba pare danañ ko yóbbu commission finance ñu saytu ko saytu ko ba pare ba d'accord ñu door koo jël danañ ko yóbbu sëñ Abdoulaye moom sëñ ginnaaw bu jógee ci trésorier bi dana ñëw ci ñun ñi dana dem ba ci sëñ Abibu nga xool ko dana ko saytu ba mu doy ko mu dal koo signé lu mu signé wu rek du jàll ndax it mooy ki nga xam ne moom la Sëñ Muntaxaa xool ndax bari na lu Sëñ Muntaxaa di wax ci Touba Ca Kanam jëmmi Sëñ Abibu moom Sëñ Fàllu moom moom moo tax mu di ko wax ndax xam xam gu mu xam ak dëgg gu mu dëgg ba moo tax tey Sëñ Muntaxaa euh, démb bi ñu def journée sociale ba ñu fa demee euh, joxe na fukki saaku ceeb fukki saaku suukar fukki saaku dugub ba pare yëkkati un million 200 ne participation am ci Touba Ca Kanam bi ndax at yee passé joxe 120 000 juróom-ñeenti nit ak moom muy muy cent vingt mille mais ren ren da koy yokk ndax moom dafa am yàqeen ci li suñ Tuubaa bëgg ci Tuubaa Tuubaa ca kanam dana ko sàmm ba ca kanamu Sëñ Tuubaa moom loolu la gëm moo tax mu ne comme da doon juróom-ñeenti nit ak moom muy fukk ren day joxeel juróom fukki nit ak juróom ak moom muy téeméer muy 1 million 200 mu yëkkati ko joxe ko loolu li mu def ko nee na yàqin gu mu am ci yàqin gu liggéey bu Sëñ nangu la te li Sëñ Tuubaa bind ci mën la bu fausoni yëpp Tuubaa ca kanam mii la jàpp ne dana ko sàmm kon nag loolu ab soññ la ci ñun ñi nga xam ne eh, ñun ñooy ŋànk liggéey bi di ko doxal nga xam ne murid yi it na ñoo xam ne li suñ Tuubaa doon ñaan ci dëkkam bi bëgg ko eh, mbooloo ngi nii mu taxaw fas yéenee jëmmal loolu mbooloo moom nag du mbooloom kër waaye mbooloom Sëñ Tuubaa la Tuubaa ca kanam du kër du kër Sëñ Abibu du kër Sëñ Laat Abibu du kër kër Sëñ Tuubaa la murid yëpp dañ cee war a ñëw bootu ci buñ ci bootoo rek ndax sëñ bi sëñ Muntaxaa ni mu ko waxee soñ def na Tuubaa ca kanam dem ba lépp loo xam ne nguur war na ko def ci Touba mu di ko defal boppam wala lépp loo xam ne xilaafa gi war na ko def Touba Touba ci kanam mën koo defal boppam kon tu loolu day wane ne Touba ci kanam alalu suñ Touba la kon nag loolu euh, dafa war a dafay doon loo xam ne toujours bu ko murid déggee da leen gën a soññ ci Touba ci kanam loolu nag bokk na ci li nga xam ne fii mu toll ni wax dëgg yàlla ba ci mois bii nii mooy mois bi ëpp lu ñu collecté ndax mois bi am nañ 80 millions ndax dañ doon am 60 65 50 mais mois bi am nañ 80 millions te yooyu yëpp mooy li nga xam ne sëñ Muntaxa mu ngi koy wax ci Touba ca kanam ndax son bi mujjee def bi fi suñ ingénieur demee mu xamal leen ne Touba kanam moom li suñ Touba bëgg dana ko sàmm kàddu googu bi ñu ko génnee yóbbu ko ci télé yóbbu ko ci rajo yi murid bi ñu ko déglee seen pas ak seen pasib ci Touba ci dafa gën a yokk ba jàpp nañu daal Touba ci kanam moom lu ñu gën a jëm kanam yëf yi di gën a màgg euh, murid yi di gën a ñëw ñu ni ñu fas yéene ba li ñu murid di jox ñu dellawaat ko suñ Touba ba pare murid teg ci seen bët loolu daal jàpp na ne bu ñu ko defee xëy na Eh, liñ bëgg ci liggéey bi Sëñ Tuubaa danañ ci jàpp ne defal ñu tawfeex. léegi par rapport ak diaspora bi laa bëgg a ñëw ñoom ñu ngi participer bu baax ndax dëkk yëpp jot nañ ci parce que yaakaar naa murid yi foofu yaatu na fa lool lool lool. allo diaspora bi xam nga diaspora sax ñoom bokk nañ ci ñi njëkk a jot ci kanam ndax Touba ca dafa jaar ci réseaux sociaux yi ci Facebook ci ci internet bi te boo xool ñoom ñoo ëpp ci li nekk ci internet waa diaspora bi moo tax bi mu démarré rek bari na ñoo xam ne Touba di nekk. seeni borom kër yi nekk bitim réew ñoom ñoo leen woo di leen wax Touba ca kanam ndax ñoo xamuñu ko ndax ñoom ci réseaux sociaux yi rek lañ nekk loolu tax euh, dugg na fu baax actuellement euh, liñ fa am ci ay dëkk yoo xam ne Touba ca kanam àgg na fa ëpp na juróom-benn fukki dëkk yoo xam ne fu ci nekk am nañ fa kuréel Touba ca kanam ñu ngi participer di indi ñoom it seen taxawaay rafet na lool ñu ngi leen ci sant bu baax di leen jaajëfal ndax weer wu jot à part kenn du leen ci mën Touba nag comme liggéey fii la soso fii rek mu di ëppee moom chaque fin mën ci liggéey waaye bu Touba jàllee moom euh, diaspora bi rawatina Italie ay France ñooñu moom bokk na ci yi mën wax dëgg yàlla mu ngi ci dëkk yu bari am na dëkk yoo xam ne sax ñoom ñooy rapproché wu ndax ku ko dégg rek da ngay xool fa nga nekk bu fa amul rek nga woot fi ne damaa nekk dëkk sàngam bëggoon participer Touba ca kanam bu ko fee ñu xamal na la fa nga nekk mën nga ko faa taxawal il suffit yow daggal sa carte membre rek su ko fee ñu envoyé la foofu daayira ba fa nekk nga dem waxtaan ak ñoom waxtaan ak jëwriñ nga ngeen xool ni ngeen koy organiser ñoo ne leen carte ngeen jaay weeru jot bañ ko defee léegi wax dëgg yàlla ñu ngi cee gis euh, lu am solo ñoom ñu wamatuñ sax ci di cotiser waaye lépp loo xam ne gis nañ ne lu baax ci Touba la dañ koy dajale ba nii nii nii am nañ benn conteneur boo xam ne 14 machine jalis ma nga ca ñetti ambulance ña ca yoo xam ne euh, waa diaspora bi ñoom ñoo ko lijjanti mu jóge Italie mu war a ñëw fii ci Touba ca kanam agsi na mu ngi ci port Dakar semaine bii nii incha allah danañ ko indi Touba euh, jébbal ko sëñ Muntaxa loolu lépp waa diaspora ba ci camion ba ci ba ci ba ci ay camion sappoor yi nga xam ne Eh, ñëwoon na fi muy ñaari camion sapeur ak ñaari ambulance yooyu mu ngi jóge woon Italie kon nga xam ne diaspora bi moom ñu ngi ciy def liggéey bu am solo ba ci social bi ñuy def kenn mënu leen ci social bii ñuy def nga xam nañ koy jàppale nit ñi ba ci ay yére dañuy dajale seen yére yi nekk Europe yëpp dajale ko fu ne daf ko ci ay conteneur ko ñu koy jëm di ko yóbbu ci sancaani kon liggéey bi moom comme ni ko sëñ bi waxee woon rek fu sama turu àgg dana fa àgg loolu moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy gis bu baax a baax moom mu ngi dem fépp fu am nekk rek ñoom ña nga fay jëmmal Touba Ca Kanam di yenn saa sax ay nit dajale fenn xaalis ba pare woote ne ñun dañoo dajale woon fii xaalis sàngam bëgg koo dugal ci compte Touba te ñoom sax jotaguñu woon am ay reçus su ko defee dañ leen teg ci yoon xamal ne leen ay blog dañ leen envoyé su ko defee ngeen bind ko su ko fee ngeen verse ko su ko defee ñoom it loolu da leen neex ndax transparence boobu la nit ñi bëgg ndax nit koo jox nga ne ko déet da nga ko def ci compte bi photo reçu bi ko su ko ñun dañ koy publier ndax su fekkente bi da ngaa nekk euh, Italie par exemple waaye daal dajale 10 millions nga jël 5 millions dugal ñun ñu def ab vidéo daal état dugal nañ 5 millions ñu joxoon seen dimi automatiquement dañuy woote fii ne ñun lañ joxoon ëpp na lool loolu lañ jublu ci def vidéo yi muy fépp lu waay joxe daal danañ ko tudd bu dul noonu ñu teel koo lijjanti si saa si waaye yàlla mu ñu defal sutura ba boobaak léegi moom tawféex rek lañ ci lañ ci. xam naa waxtaan wi neex na waaye waxtu wi mu ngi ñuy kii euh, ñu gis ne tamit euh, projet yi rafet na ni liggéey bi euh, di la ñaanal bu baax ci xel mi la suñu borom may ba nga yëkkati projet bu am solo nii ba nga xam ne murid yëpp gis nañ ci seen bopp muy lu rafet lu lu am solo ci ñëpp ñëpp wax dëgg yàlla murid yëpp xam nga xolu murid boo yëkkati lu bu xam xolu murid boo xar. lu jëmale dëkk bi kanam la la la nekk. nga defal ñu tawféexu ku ci nekk mën cee gis sa bopp. ku ci nekk mën cee def sa ñaq euh, muy lu rafet lu murit yëpp di bëgg saa su nekk saa su nekk ñun ñëpp ñu ngi ciy bëgg di ci kontante di ci soññante nag bu baax ñëpp ciy soññante ba ci projet lii ngay wax nii di wax naan mbootaay yi joxe fukk-fukk fépp la am man sama koñ nag fépp la am fu ñu toog dañuy toog ne fukk keesu Touba ci kanam gaa ngi nii ñu dem ñëpp dugal ñëppay dugal kenn du ne déedéet 50 francs yooyu ñuy joxe par jour waa duñ ko yëg sax duñ ko yëg sax te yéene nañ lu ëpp loolu Serigne Touba te ñu ngi koy def kon sëñ Fallou dañ lay jox euh, nga tàggatoo euh, ndax kontaan nañ lool lool bu baax a baax nag ci ñëw bi ak euh, leeral yi ngay leeral. dellu di sant bu baax eh, di ñaan yàlla na suñu seen liggéey bi eh, di sant mboolem waa Touba kanam eh, Touba ca kanam nag bu ñu ko waxee mooy sëñ taxa moom ni mu mel ci kanam moom daanaka moom wàcc naa ak Touba kanam maam lu mën a wax. ci luy jëmale liggéey ci kanam wax na ko lu mu mën a jëfit ci luy tax liggéey bi jëm ci kanam yi jëf na ko euh, ñu ngi koy ñaanal bu baax sunu borom may ko fanu gudd ak wér yéeneem ci Touba ca kanam moom moom moom moom ni ko waxee rek euh, mat la bu fësee ni la suñ Touba ñaan Touba kanam jëmmal ko yéeneem jooju nag yàlla ko suñu borom matal di sant bu baax suñ Abibu mi nga xam ne euh, lii lépp ab xalaatam la waaye ak njubam rek moo tax liggéey bi ak si ak sëñ Abdou Abibu ak ki nga xam ne tey moom mooy jëwriñu Touba ca kanam di président bi di sëñ Abdou Fatah Gueye eh, di sant mbooleem commission yi mbooleem koo xam ne yaa ngi Touba ca kanam ci kaw ba suuf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan sëñ Touba liggéey bi mu sàmmal ñu ko ba mu doon loo xam ne day doon alalu yoonu murit ñu dem ba suñuy sët porté ko nga xam ne Touba ca kanam moom du fi jóg tànk yoonu murit mu ngi dox loolu la ñuy ñaan yàl nañ ko sëñ Touba defal te liñ ciy jëfit yàlla nañ ko te barkeel ñu ko di leen sant bu baax di leen gërëm. jëf jërëjëf Serigne Fallou Ndiaye jëf waxtaan wi am na solo bu baax a baax a baax ñu leen di nuyu di leen ziyaaraat bu baax a baax di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak ñun tey jii eh, ba beneen yoon incha allah ci seen beneen numéro jaajëf. li